abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf dialogue di waxtaan yu président Macky woote ma ngay bëgg am ñu ko wuy meerum Dakar ba woon di Khalifa Ababacar Sall la sinekaay mi ngi ñuy xamal ci xët bu njëkk ne waa këram yi di waa taxaw Sénégal ñoo ngi sàkku ci seen Khalifa di Khalifa Ababacar Sall mu dem wuy ca dialogue ba donte teg nañu ci teg ci fa ñu bëgg waxtaane jëm fa Walf Quotidien bind ne gaañi ñoo ngi poussé Khalifa Sall ñu ko yéenekaay bi muy wax ne ci toog waxtaan ci la njariñu réew mi nekk l'observateur nañu fi ñu nekk ni du Xalifa Sall ak waa këram rek ñoo noppi ngir dem wujj ci wote Macky bi ne ci jamono ji nga xam ne Xalifa mi ngi consulter basam di waxtaan ak ñoom ngir ñu xam ci ban taxawaay la ñu war a taxawee ñoom waa taxaw Sénégal waa parti démocratique Sénégal ñoom it ñoo ngi ci yoon ngir dem wujj ca dialogue ba Tribune gis ne dialogue boobee président Macky Sall woote luusa nga ca journal bi ab Sall Xalifa yoon wu ñu mën a jaar ba ragal Karim Wade Xalifa Sall seenub der journal bi nee nañu yoon woowee la ñuy waxtaan wi dialogue de la honte di ndajem gàcce nee nañu coordination yu coalition taxaw validé nañu dialogue bi dialogue boobee président Macky a ngir wujji basam la wax ko lu ciy seen xalaat waaye farandoom ya fara ca Tamba ak ci Pikine ñoom ànd nañu ci seenub leader Khalifa Ababacar Sall dem wujji moo leen yitteel jamono ji lenn rek ba mën a bokk ci élection yi source waa xëy ñu baaxe lenn ci li ñu xamagum ci yi ñu war a waxtaane ci dialogue ba bu doon am tey ji yéenekaay bi nañu dina bokk ci yi ci gën a fës amnistie bu Karim Wade ak bu Khalifa Sall ak mbirum parrainage bi journal bi nañu waaye nag attention kuy yaakaar ñu jële fi parrainage bi yaa ngi nax sa bopp li ci mën a am daal moo ñu xool yan coppite la ci mën indi ci du ne déet du ma ne waaw di nii wii di noo gi Macky Sall taxaw loolee yéenekaay bi gis na ne bu ñu ko réglewul mën naa galfan dialogue bi kii di Karim Wade journal Source A mi ngi ñuy Sall tàllal na gaañ ab loxom ngir ñu toog dialogue waaye bu weesoo loolee dialogue bi yi mu war a àndal ba fi mu nekk nii kenn tanewu la ci xalaat yi waroon nañu ci njëriñal dialogue bi ci nan la koy defee ak lan lañ cay waxtaane bu doon am tay ji ban personnalité la koy dénk ngir mu doxal ko ñu dox dem ci journal Le Mandat mi ñuy wax ne Pape Modou Fall ak i gaayam di waa coalition républicaine sàmm sunu réew ñoo ngi sàkku ci waa Benno ñu féexal Macky Sall bi ci naka ñu a réew yi nga xam ne ñëpp xam nañu ne mosuñoo jóg di défendre deuxième quinquennat bu président Macky Sall nañu ci moom président Macky mu wax ak allié yi gindi leen ci candidature bi ngir cohésion politique ak it moytu organisation bu jaxasoo lii la mandat wax lii quotidien moom it loolee la wax ci xëtamu njëkk mu di waa coalition républicaine sàmm sunu réew ñoo ngi sàkku ci président Macky mu édifier ay allié moom président national di Macky ab yooyee moom la ñu yéenekaay bi xëy di yeggee enquête yéenekaay nañu ca ndajam conseil interministériel bi ñu doon def démb fa la tëralee yoon yi ñu war a jaar ngir campagne agricole bii di ñëw bëgg-bëgg bi mooy yegg ci autosuffisance alimentaire ci kaw loolee enquête yéenekaay ne nañu xamle nañu fa téeméeri milliards yu ci état bi fas yéenee dugal ak ñaari téeméeri junni tonnes yi engrais ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay te wóor aju ci